Coco Pulp, un soin délicieux à l'huile de coco pour une peau lumineuse, lisse et soyeuse. Pau Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. Caro White, le soin 3 en 1 qui hydrate, unifie et illumine votre peau. Dream. Les soins Day by Day Women subliment votre peau pour longtemps grâce à leurs actifs cosmétiques. Belle Façon, ça sent bon.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 100% Caro White. Caro White, le soin 3 en 1 qui hydrate, unifie et illumine votre peau. Dream. Aujourd'hui, c'est le jour. Je dois briller, épater, éblouir. Ma devise Bien dans ma peau, bien dans ma tête. Ok, je suis prête. C'est parti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 Touba Ameublement vous vient en amélioration sur leurs produits toujours made in Sénégal du jamais vu dans ce pays Nous allons découvrir ce nouveauté salon moderne yi nga en vogue tu as bi salon en tissu un salon en velours de qualité salon en cuir authentique salon en cuir artificiel wala le salon assise ressort orthopédique ay chambre à coucher nous sommes à la rue 3 angle Blaise Diagne Diano Iba Mar 77 555 64 78 77 430 02 02 78 430 59 59 77 431 03 03 bas Ameublement nous vendons ce que nous fabriquons nous fabriquons ce que nous vendons Pikin Marsezeng, Logat gat gat dig. dig dig nga Abu Njaay Gesner ci Pikine Abu Njaay Gesner moy jaay tissu yu bax ye fofu nga xam mom modi ci wetu pàkk ginaar waye mu daal ubbi wat benen ci wetu katu yap yi benen boutique bo xamni ni ku fa ñew andandok mbekté waye mu amat place Cambérène 2 ci koñu Baboy fofu nak dafa am boutique vessel lo nam ci tegle bool chafing disque 47 pièces en porcelaine luxe ay verre boisson pour teral say gan ay tasse en porcelaine ay bol en porcelaine service 18 pack ay service sans pack table de luxe ak ay micro-ondes ah Abou Ndiaye Jesner gannaaw vaisselle bi am na it cosmétique nga bëgg a poudre wala nga bëgg a fond de teint Abou Ndiaye Cambérène 2 ci wetu mausolée Layeen yi janoo ak fast food Baboy 77 794 64 58 wala 76 839 90 Sira maa ngi bëgg yàgg ci bunt bi kañ laa dégg entrée Sira dégg naa sa mariage dañ ko annulé. <laughs> sama mariage ñu annulé ko man kan moo sañ loolu. Bill paa bu dee boobu moo annulé sa mariage. Aïda paa dee boobu mooy sa jëkkër te mooy dooni sama jëkkër man te loo si xamul léegi mu fasa xool naa ba xool mais maag yow mën ñoo waxtaan. boo sadikoon doo yónnee ond muy ñëw di yendu si danga ñëwal sa bopp. Sira nañ dem. ba ci cappaandaw. mooy wax ak yéen rajo dernière. dof wala lan koñ bi ni mu mel ak ay policiers nga di ma woo sa biir kër loolu pour lan la. bien sûr que gis naa ko loolu moo tax ma woo la pour nga gisal ko sa bët. léegi su ma tegee sama bët après. sama liggéey mi ngi yàqu. mais sa liggéey buy yàqu la moo ci sa loolu ci sama yoon et puis lan laa ci mën. xanaa nga jox ma xaalis. man ma jox la xaalis. waaw nga jox ma xaalis. weer bi jox naa la trois fois xaalis. Oh, nga joxaat ma. Mati duma la jox tous. doo ma jox dara duma la ko jox. boo ma joxul ma jóg léegi boole la. fan nga jëm. ah xam nga ku ma lay boole. Mati Mati Mati n'est-ce pas yow laay waxal fan nga jëm. xanaa dem boole jël. mais ñi koy doxalee ak man yow. Hmm. ma ni ndax di nga ma jox wala doo ma jox. dinaa la jox mais du tay parce que xaalis bi mi ngi accident dinaa ko récupérer indil la li yombul li yombul ngay balbalu di jaay réew maa la gën a réew foofu maa la gën a doon

bloqué ba. je ne pense pas d'ailleurs saabu ut na kuy togg waaw tey sax lay commencer këram lay toggee andi ko bureau. Mhm. lépp looy lekk ko xam ndax lépp lu nangu benn yoon nag. Samber mu ganaar t'inquiète pas je ferai attention de du am allez mhm. à ce soir bonne journée taluma ko kër mati laa jógee moo ma teg pression nee ma gars yi wàcc nañu këram et puis liggéeyam yëpp yàqu na nee ma jox ko xaalis wala mu dénoncé ma il faut nga jox ma xaalis ma jox ko nañ ko dénoncé ñu lu ndax laajte bi bari na. yow loolu mooy sa xalaat Sira bul fàttali ne buñ ma jàppee dañ lay jàpp. léegi sax xam nga nan def man ak yow dona dona da ngay def li ma bëgg ma def li ma bëgg. kon léegi da nga may et puis yow lan nga bëgg lan nga bëgg. nga fase Aïda Diagne. Sira da nga dof la lan la man ma fase Aïda man bi ko ay di xaar suñu sët nga ne pour ma fase ko man ko def jamais de la vie. doo ko fase bul sax sonn du ko fase. mën nga wala Sira mënuma fase Aïda Diagne mënuma ko et nga defal ma tàng ma. defaruma dama ne di nga fase Aïda Diagne wala doo ko fase. mën ma defal café wala mënuloo li ma wax dina am wala du am walaay dëgg. ok dinaa ko fase. dinaa ko fase. ok. defaral la café. non c'est baax na bëgguma café. Masya Allah, likita yu da la jàpp mu laa jàpp na ma kon hi kon kau bu ma sëy dinaa ko defal sama jëkkër cadeau de mariage ah kau na nga doon essayé Ya daal da ngaa jàpp góor ak jigéen ñoo néew maa kenn du ma yilif damay bañ ko ma doyee dal magum jëmmal laa xam naa lu baax ci man kii xamul boppam xamul buur saay na

dof nga yor ndax bi mu koy def am seeg sagoo wax ma leneen mbëggeel yëf dof yow da nga wér yow boo wéroon yow consacré sa temps ak sa xaalis ci benn gain boo xam mu lay jaay neex bu doon man la boo ma ndamoon tey nga xam su boobaa dama lay yëkkati ba ci kaw voilà suuf

Aujourd'hui, c'est le jour. Je dois briller, épater, éblouir. Ma devise Bien dans ma peau, bien dans ma tête. Ok, je suis prête. C'est parti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 on appelle Bel Air. Mmh, ça sent bon, hein Fini les mauvaises odeurs dans les tissus. Le désodorisant Bel Air Textile rafraîchit tous les textiles et s'utilise aussi pour votre repassage. Ah, mon mari, tu es hein. Bel Air. Façon, ça sent bon. mbokk yi nuyu nañ leen di leen ziar yéen ñëpp di rafetlu seen tawaay ci bis bi. mu doonoon bis boo xam dañ ko bëtal tey nag la àjji bi waaye balaa ñu ñëw ci loolu bis bi dafa riche am. waaw teraanga yi bëri na. loolu bis bi yaatu na. Mm. ku na teew na fi. Mm. ba la gisee sama poche bii ni mu diisee nii xam nga ni ndeewu ma ko woon nii. ay enveloppe yu nekk en état de grossesse très avancé ci nekk risque de césarienne mm. sama géer gu baax gi moom ko jox. moo tax daal tey bis bii ji. dañ koy tuddee tur wu rëy moom kan la ko tuddee dëgg-dëgg doom ji daal tuddee nañ ko wuri ba kii mooy mujjee judd njëkk baax macha allah maanaam kii bu ñu ko ñaanalee mu màgg ci réew mi dinañu amal njëriñ lu ngeen di laaj ku validé yéen gën a xam ki validé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 commissaire yaa ma woo Oussou franchement bett Ngama, tu me déçois si mais nan nga mën a demee opération sans inspecteur Louga te dama leen wax ngeen def équipe ngeen liggéey ensemble. da nga bëgg ma tontu la franchement. yow rek lay déglu. je lui fais pas confiance. wóolu. mais pour lan lan la def. damay bañ partage ak moom information ñu jox ko waa réseau bi. Ousseynou li ngay wax ni c'est très grave yan preuve nga ci am. Hmm? certes aw ma ci preuve njort rek la ci am. mais njort doyul pour accuser un officier de police. del partager ak mom information c'est un ordre. À vos jëkkër dégg naa dañ dévaliser bitigam bettu ma danga ay gaaf nee ne sama doom avant muy dugg ci yow am woon benn problème ba mu la xamee ba léegi ci problème rek la nekk tey yàlla may ko liggéey ñu roñ boutique bi yépp nee na yaa am dina ju bon doomu caga nag mënut am barke dama lay ñaan ni laahi war a suuli nen na dooma sarax nga ñaan baat te nga génn kër gi gis nga Aïda Diagne su ma rusul woon Kéba ay da nga di sama yaayu jëkkër bi ma xas dinaa la ko ci nga dëkk man taluma ay sama xol neexul dama bëgg nga may ma sama jam. te nga sama nek. génn ma nek, bi xanaa da nga fàttali kër gi man lay ñaata Aida Diagne di nga génn sama néeg wala doo génn sama néeg. su ma génnul. Last one. Last one. bi rek. alhamdulilah man de Pa Ousmane fii laa gis asma boore bëgg ay xar. asma bi daal. yàlla bu ma ne alhamdulilah liggéeyu loo tey liggéey naa kay may doog a wàcc damaa teel a wàcc tey la xew ba nga seet génn sama kër waaw damaa bëgg nag nga seede ma dama koy fase Yaudah, daan lan def sama kër ya may wax nga ne faax sama digg la bu nga même deh. kon nga dee yow lan laa sëkk ak yow ba nga may wax ay wax may benn <sighs> mais lii sa yaram la te du jeex comment mais ko bindal pour nga ci mais kaay ñu bànneexu ci. da bàyyi say fi indo yi. ñëwal li ñu arrangé mu jeex. gis nga tey nag dinaa la xamal dara. sikk naa bépp sikk. waaye duma ne fa maanu kenn. te li ma yor. jaayul dafay maye. te damay xool ki ma bëgg ma may ko ko du man ak yow. gis si li ngay def ni yëfu ñàkk fayda la. te góor du ñàkk fayda. noonu nga gisee. jugal nga génn sama kër sa kilo ngay mel ni koy waaj a pëtikaan jugal. baax na amul problème d'accord waaye dinaa gis kee baax tegal ko lépp ni mu demee